ndax ci ceddo ga njëkk lislaam dañoo bañoon lool doom bu jigéen ak got ku ñu masaane sa soxna wasin na te muy jigéen daal xolam day naqari ba naqar wa feeñ ca kanam nga muy nàttabale ba xam ndax da koy téye rekk ak lu ca man di am ci toroxte am da ko war a gas suul te muy dund wa ida bushira ahaduhum bil unta walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawaara min alqawmi min suui ma bushira bi ayumsikuhu ala huun am yadussuhu fi turaab bokkoon na ca seen aada suul seen doom bu jigéen muy dund te sax du rekk muy door a juddu di gone waaye dañ daan bàyyi ba muy magum jëmm nga xam ne xam na xàmmee ñu fexe ba ànd ak moom dong ba ca àll bay àll ba ñu gas ba mu xóot dugal ko ca biir di suul xëy na xale ba di wax bàyyi ba naa ko bàyyi lii nag muy suul rek noonee ba mu maase mu dem bàyyi ko fa moo tax ci alxuraan mu naa wa idal mawuudatu su'ilat bi ay zambin qutilat maanaam bu àllaaxira dañuy wax jigéen ja nga xam ne dañ koo suuloon te muy dund ne ko waaw yow loo def ba yow loo def ba kii suuloon la te ngay dund fekk xam nañ ne moom ci boppam deful dara dañoo bëgg a yedd rek ka nga xam ne moo ko suuloon te muy dund looloo tax nag yonent bi daan jagleel lool gone yu jigéen yi di waxtu yaaba ju réy réy ci ku yàlla dénk jigéen te nga yar ko toppatoo ko ngir yàlla daañu nettali ne maa min rajulin tuuladu lahu jaariyatun wala yasqatu illaa wa nasala malakun min assamaa fa yadahu yadahu ala rasiha fa yaqulu laha mubarakatun min mubarak almunfiqu alayki mohanun ila yawmi alqiyama ku ñu ne sa soxna am na doom te muy jigéen waaye niru ca defu ca da am malaaka day wàcc bàyyi ko ci asamaan jël loxoom teg ca kaw bopp xale bu jigéen boobee mel ne kuy wàqanteeg xale bu jigéen bu ne ko yow day ku barkeel nga bàyyi ko ci ku barkeel te ku lay toppatoo di la dundal yàllaa koy dimbale faw ba bis penc beneen addis ne man kaana lahu talaasu banaatin aw talaasu axawaatin aw bintaani aw uxtaan fa axsana suxbatahunna wattaqallaha fi amrihinna fa lahul janna ku amee ñetti doom ñu jigéen mbaa yetti mbokk yu jigéen mbaa sax doomi jigéen yi di ñaar mbaa mbokk yu jigéen yi di ñaar waaye mu war leen yor bu rafet te yàlla tax yàllaa ko ameel àjjana kon nag bu fekkee ne yàlla mayu ko lu may ay doom yu jigéen it na sant rek ndax yàlla fu ne lay def barke mën naa am doom yu jigéenam yooyee waa ju baax fab leen def leen soxna ama ca njabootu lislaam gu baax a baax goo xam ne seen taxawaay ci lislaam ak seen barke ci lislaam du fay mukk te góor lum baax baax di ab yonante mbaa muy waliyu ak ku mën doon rek ci jigéen la jaare amna yaay amna sax ku baax te amul baay di ab yonante muy Isa alayhi salaam waaye am na yaay moom muy Maryam bokk na ci rafetuk yaritam mu teel koo jàngal màggal boroom xam-xam yi ak gaa yu baax yi ak di sàkku barke ci ñoom ndax mu yaru ca loola tàmm ko bu baax a baax ba fu mu gis rekk boroom xam-xam baa waaju baax màggal ko te barkeelu ci moom bokk na ci yar sa doom nag nga teel ko yar ci teggiini lekk mooy balaa lekk wax bismillaahi teyit di yem ci kanamam teyit bi ubbi ndab li muy moytoo njëkk a dugal loxoom na bàyyi ba mag ñi tàmbali moom mu mujj tàmbali teyit bu noppee wax alhamdulillahi rabbil alamin sant yàlla na ko xamal te mu koy xamalaale ne ko yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kat dañoo digal bala noo lekk rek na fekk nu xiif bala noo naan na fekk nu mar waaye buñ jekki-jekki rek lekk mbaa nu naan te xiifunu mbaa marunu la ci gën it mooy mu bañ koo tamal ñamu bakkane bakkane ba ëpp nga xam ne su génnoon àdduna bàyyi ko fa day daal di jaaxle du am fu muy jëleeti ñam wu demee noona la gën daal ci gàttal daal muy la muy lekk ak la muy sol ak fa muy tëdd yooyu yëpp rek na dikk doomu lu mu ko jekku-jekku moom waajur wi bu mu ca topp ba kanam ba mu ëpp ëpp nga xam ne su ko gisul rek daal di tumuranke ndax la mu tàmmoon démb na koy aaye itam wax ju bari mbaa waxi caaxaan mbaa aw ñaawteef ni ki saaga mbaa lu ko nuru mbaa xas keneen na koy aaye itam li ñuy wax dëgmu wala jël am përëgam ŋaaw ko ci boppam ndax dañu ne dëgmu ak jël përëg mel ne ku ko ŋaaw ci sa bopp day indi ak tayel ak mel ne ku nar yaru ci gaawa jaaxle su gone gi demee nag ba xàmmee lu aay ak lu aayut saa yu waxee lu aay mbaa mu def ko rek buñ bëgg lu ko neex ba bàyyi ko ca na ko daal di xamal ne loolu kat bul ko defati su ko delloo defit na taxaw temm ci waxaat ku ne ko bul ko defati bu ñettee nag mu yar ko bu ko dee yedd nag mbaam di ko yar itam na moytu di ko wax ay baat yu ñaaw a ñaaw ndax xale ba day defe ne baat yooyu aayut bu jógee moom it di ko wax na moytu itam saa yu nekk rek mu di ko yedd ndax day mujj kon ay waxam du ko safati ay waxam day booy ay noppam lu mu ko mën di waxatit du ko faaleeti na ko yedd rek léeg-léeg te bañ saa yu ne rek mu sëgg ci di ko yedd dóor it bu mu sëgg ci saa yu nekk di ko dóor ndax day mujj kon dërkiis du faaleeti dara yépp na ko def rek ndànk-ndànk su demee ba tàmbalee jàng itam bëgg rek mu jàng njàng mu gaaw bu mu tax mu dëkkal ko ci jàng guddeeg bëccëg du noppalu mukk-mukk na koy bàyyi muy noppalu te waxtu wa muy noppalu mën na ko bàyyi muy fo fo moo xam ne aayut ndax ku ne buñ ko aayee foo ne ko doo laal dara dara ci foo nee nañ loola mën naa rey xolam day tax xolam dee lu mu xir-xir ci njàng mi itam na koy bàyyi muy noppalu alxames ak ajjuma ndax Omar ibnul Xattaab yal na ko yàlla dolli ngërëm da koo digle woon te canam ko diglee mel ne ne lu ko ñoroon la ndax àgg na ci ñaan koo xam ne doo bàyyi gone yi ñu noppalu ñaari fan ñooñu yàlla bañ koo may wërsa wuyaa loolu nag bu dee gone yi nga xam ne duñu jàngee seen téyeg bakkan dañ leen téyeg ga waaye su dee mag moo xam ne ci teyu bakkanam rek lay jànge moo xam alquran lay jàng wala xam-xam moom bu ko neexee waxtu wu ne muy jàng waxtu muy noppal itam moo koy seetal boppam rek na mu déggoog aw njànginam bu amee juróom-ñaari at mu topp li hadis ba digle dal di koy tàmbalee digal julli yooyu jamono su bañee jëruta dóor su amee fukki at moom na ko digal julli te taxaw ca su bañee na ko dóor bu jàppee ne dóor ya dana ci am njariñ su àggee nag ci kàllafe kàllafe bu dee ci at fukki at ak juróom moom ñu bari wax nañu ko waaye bu dee ci yoonu Malik ñoom dañuy wax fukki at ak juróom-ñett su at yi àggul foofu te mu gént gis maniyu wala muy jigéente ëmb mbaa mu gis li ñuy wax baax muy li ñuy wax reegal ba tey kon kàllafe na muy doomam muy soxnaam soo xam ne julli war na ko muy keneen moom na taxaw temm ci di leen sant ñuy julli te mu jaral ko lu ne la koy dimbali nag ci njabootam maase ci fonk julli ak jaamu yàlla moo ñu gis ci moom ne moom mii kat julli ak jaamu yàlla lu ko ñoro ñoro la waaye buñ gisee ne bu dee ku góor ki mën a liggéey lu ko ci yitteel mooy rekk dégg ndigal ak nangoo liggéey bu dee soxna sa it mën a togg togg gu baax fóot fóot mu baax mën a waaj waajtaay wu rafet rekk moo ko ca yitteel bu ñu xasee xam loolu boo leen diggalee julli itam du tax ñu faale ko ndax dañu xam ne yow su wàllu àdduna gii moo la gën a yitteel li dañ ko wax nii rek waaye ci dëgg-dëgg yitteelu la bu soxna si xasee xam loolu nag la mu bëgg rek mu wàllu bakkanam la koy defal waaye bu ko diggalee jaamu yàlla ni ki julli mbaalu ko nuru day xam ne rek da ko wax rek waaye tolluwu ko fenn loolaay tax du fonk julleeg lu nu mel ñoom nag dañuy wax ne su fekkee ne moom jëkkër ji def na lépp lépp lu man ci soxnaam si di julli waaye mënu ca dara du julli kon na tàggoog moom te wuti keneen waaye nag am na ku ko laajoon sëñ bu mag bi sëñ bi ne ko ndax man nga rek bu waxtu julli jotee nga ne ko demal julli ji ne ko waaw mu ne ko defal noonu su nangoo dem julli bu ëllëgee yàlla boole la ak moom yóbbu leen fa ñuy yóbbu ña daa julli su gàntoo nag bu ëllëgee yow yàlla yóbbu la fa muy yóbbu ña daa julli moom nag mu yóbbu ko fa ñuy yóbbu ña daawul julli waaye moom néewu ko tàggool ak moom doom ja it su fekkee def na ci lépp lépp lu man ci muy julli te mu gàntu say ba mu jàmb ko tàggoog moom te yàlla tax su xamee nag ne njabootam dañuy sàggane julli taxul mu wax ca dara mel ne ku ko faaliwut moom ci boppam lu mu fonk-fonk julli nee nañu bu ëllëgee bu dekkee yàlla da koy jiital boole koog ñam wax ci alquran naa fa waylun lil musallin alladina hum xan salaatihim saahuun nee nañu ñooñu mooy ñi nga xam ne daañu julli sax waaye julli ga da leen dul yitteel dañuy bàyyi rek ba waxtu wa jàll ñu këpp këppal rek bàyyi suñu boroom da leen a tëkku ci toskareeg alkande bu ëllëgee bokk na ci rafetub yaritam mu fexe ba jàngal njabootam métier moom baay bi lu mu man man boppam ak lu ko yàlla defal ci wërsëg lu mu bari bari rek du tee na fexe ba njabootam kenn ku ne mu jàngal la métier mu bënn ndax métier mu bënn ku ko yàlla defal rek mën naa am doo ñàkk ku mu jaboote rek na fexe ba teg ko ci buntu buñ mën a amee wërsëgu lew te bañ a jàpp rek ne moom mii borom njaboot gi mënal na leen te mi ngi leen di defal ndax xamut kañ lay génn àdduna bàyyi leen bokk na ci rafetuk yar ay doomam bu leen di yemale ci bu dee joxe du jox kee bàyyi kee mbaa du jox kee lu ëpp lam jox kee lu may nag la tax mu jox kooku lu ëpp ay yitteem moo toll foofa loolaa tax bañ ñu ëppante ga ci kaw rek kenn ku ne ñu seet la yàlla ca moom waaye bu ñu yemee rek moom na leen yemale nee nañu dafa am ku mayeen kenn ci doomam rek bàyyi ñu ci des bëgg yonent bi seereel ko ko yonent bi ne ko man duma seere lu jubut bokk na ci rafetu yar bu ko yàlla dénkee doom bu jigéen ba mu àgg ci mata dem kër mu taamul ko góor gu baax gu rafet diine ku rafet jikko nee nañu saa yu mayee doom bu jigéenam ab saay saay rek day mel ne dagg na ko wacc jotee tëg moom dara addis ba nee na ku may sa doom bu jigéen ab kàccoor bis bu ne daañu la rëbbu junni rëbbu te jëf joo jëfati duñ ko bàyyi mu yéeg jëm asamaan loo ñaan it kenn du ko nangu ci gàttal sax loo def rekk muy farata mu lu ñu sopp yàlla du ko nangooti man zawaja karimatahu min fasiq nazalat alayhi kulla yawmin alfu laana wala yasxadu xamaluhu ila sama wala yustajaabu lahu duhaa wala yuqbalu minhu sirfun wala xadl ba tey addis ba nee na jigéen lu yàgg-yàgg bu mu nangu ab kàccoor takku ko faaw rek nay taamu ku rafetu gëm rafet pas-pas rafet jikko ndax ne jigéen kat bu nangoo ab kàccoor takku ko bu dekkee ba jóg taxaw day fekk ñu bind ci diggante ñaari bëtam jigéen ji day bu mu yaakaar mukk yërmande yàlla ndax du ko am hadis ba dane ayu mamra'atin radiyat bi tazwiji fasiq qamat min qabriha maktubun bayna aynayha aisatun min rahmatillah teg ca ala man arada shafaahati fala yuzawwij karimatahu min fasiq ولا من قبيح ذميم ولا من فاجر لئيم ولا من شيخ كبير ku bëgg bu ëllëgee maramu la bu amee doom bu jigéen bul ko may ab kàccoor bul ko may saay-saay bu bona bon bul ko may màggat mu jeex tàkk soo ko joxee gone du mën a joteeg moom na mu ware benn gone ga loru mbaa mu génn di mooy yàlla loolu te su ko def ñu ne nag bu fekkee ne daa am doom bu jigéenam amul kenn kenn kum ko mën a may ku may ab kàccoor rekk lu muy def mooy bu fekkee ne doom bu jigéen ba bu amul jëkkër faaw mooy yàlla na ko may kàccoor boobee ndax moo gën mooy yàlla ga na moytu nag am doom bu jigéen gis ku baax ku ko mën a yore mu bañ ne du ko ko may ku ko def nee nañu bu doomam wëlbatikoo mooy yàlla njaaloo dana ca gàddu moom it bàkkaarub njaaloo bu tol ne bopp doomam joojee wa man balaxat ibnatu wara at kuf an walam yuzawijha minhu fa zanat fa xaleyhi mitlu ismiha qultu wax naa ne wa minhu bokk na ci teggini fes yi al lutfu ñawante bi zaxiri ci ndaw wa misluhu am kemam la at tab jiilu màggal lil kabiri ñeel mag wa jaalu mislika ak def sa moroom kanaf si ka niki sa bopp istiwaan ci ak yemoo waxay du fii ak yu bokk tëg yi mimmaa ci lépp loo xam ne xawaa làq na istiqaamatan ak jub ne ma ne bokk na ci teggiini biti te sax daanaka mooy yoonu teggin ci gàttal mooy nit ñi nga def leen ñetti xaaj koo xam ne moo la mag nga fonk ko ngir yàlla rek ak nu mën di demee koo xam ne yaa ko mag nga yërëm ko ni ko ndeyam ak baayam yërëme koo xam ne sa moroom la nga def ko ne sa bopp di ko bëggal lépp loo bëggal sa bopp di ko bañal lépp loo bañal sa bopp yi mu jota wax yépp nee na xeeti teggin la yu fés ci bitti ak yeneen sax yoo xam ne jotu leen a indi fii ndax xeeti teggin yi dañoo bari te tasaaroo wa qaala waxoon na aydan ba tey saaxibul wasiyati boroom dénkaane ba mu xaatiban mbir mu muy aji wàqanteeg li beneen ñeel doom bu góor lëxoo boog ñeel na ko masiyatun nganeel ne ko càmmir na nga wogu wogu mooy boo jëmee ci lu la yitteel ni ngay wogee say loxoy mbubb ak say yéere ba mën a jëm ci la nga jëm bu baax a baax mooy càmmir kon na nga wogu ilaa makaarimil axlaaqi jëm ci tedd ngay jikko ya xaalisal amaali mbir mu ngay aji sell ay jëf mina nifaaxi ca nafiq al adabal adaba taqoo la taqoo teggiin tumal adaba topp teggiin waxoo moom an taburra moo di nga topp waaye daa mel ne barra moom ya barru mbaa ya birru moo ca bari booy xool fi ñuy seeti baat bi doo gis daanaka barra ya burru kon man nga ne waxoo moom anta barra moo di nga topp mbaa anta birra umman ndey wa aban ak baay wal xamma ak baaye tax mooy baay bu ndaw wal xammata ak bàjjen wal axa ak mbokk alkabira may aji mage wa cheikha akub sëriñ wala sax am màggat ina cheikha naka sëriñ ba wala màggat ma jadirun aj yeyoo la bil birri ci ak topp mooy ci nga defal ko lu baax ak njekk wa kullu man képp koo xam ne sama yëkkatiku na xale ka ci yow tukrimuhu da nga ko teral wa kullu man képp koo xam ne saxura ndawe na xanka walis la tarxamuhu da nga ko yërëm ne am na ku doon dénk doomam bëgg mu baax mu ne ko defal loo man ndax nga amee jikko yu tedd yaa tedd fexeel ba say jëf na sell bu ca dara ci naafiq laal teggin nag moom danga ko fonk lool loo ci amoon rek xeeb ko moo tax mu tudd al adab baat bi firi teggin yetti yoon al adabal adaba tumal adaba ne ko nag la jiitu ci teggin mooy si yaari waajur nga sopp leen ngir yàlla te lépp loo man ci lu baax nga di leen ko waxal di leen ko defal ba tey it képp koo xam ne rek doon na dara ci yow ci jegeñaale moo xam day sa mbokk moo xam day sa baay bu ndaw wala muy sa bàjjen def ko ne sa ndey ak sa baay fonk leen toppatoo leen ngir yàlla ab sëriñ it muy ku ñuy màggal ngir yàlla foo ko fekk rek màggal ko teral ko ko xam ne sax da di am màggat rek mag mu ne wares na koy jox orma ko foo fekk am màggat rek nang ko ñëwante te teral ko mu ne ko it képp koo xam ne moo la féeteeg mag na nga ko fonk te teral ko képp koo xam ne yaa ko féeteeg mag na nga ko yërëm ni ko ndeyam ak baayam yërëme xonaa fii intaha la jeexe tamsiilu baadima misaal lenn li nga xam ne xalana feeñ na fal nan sarif nanu wëlbatiku li zikri baadima jëm ci tudd lenn li nga xam ne batana biire na daa waxoon ne teggin yi dañuy ñaari xaaj teggin yu fés ci biti ak teggin yu làqu ci biir dafa njëkki woon di wax nag teggin yu fés yi mu ne yooyu ñoom li ma ci jot a wax foofu laa koy yemale kon nan jàll ci teggin yi nga xam ne ñooy làqu ci biir war a dox diggante jaam bi ak boroomam amal lës yi ndaal la nga xam ne batana biire na minhu ci teggiin fa mata asa taxoo saa yoo ko ñaawalee tuut radd kon def na la dàq wa tuux jab te dee fi la yiir yaa fata yow ascam wa tardu te kat dàq ga xan baabil illaahi walis buntu buur ba wan xij wal xijaabu ak kiiraay la ashaddu mu gën a tar min kulli garaamin ci wépp naqar wa xadaabin ak mbugal li mu jëkk wax mooy xamal la ne la teggin yi dox sa digganteeg sa boroom kat war nga koo sàmm bu baax a baax ndax boo ko sàmmul rekk yàlla dalay dàq du nangu nga taxaw ci buntam day jël tam baaraas doxale sa digganteeg moom doo mën a àgg ca moom rawante na koo xam ne masoon na neexitu jokkoonteeg boroomam kooku moom bu ñaawalee teggiin ba ñu dàq ko mënta taxawati ca buntub soppe ya dana daj lu naqare naqari lu méttee métti loo xam ne kenn mësu koo daj ku may rekk ku mel ne moom looloo tax ña xam yàlla ñoom jëmmi sawara ci boppam ak mettit wa ragaluñ ko waaye la sawara nekk bérébu merum yàlla ak ñàkk jokkaloog yàlla rek moo leen ci metti ba tey àjjana itam xéewal gaag neexit wa amalu leen solo la àjjana nekk rek bérébu ngërëmul yàlla ak bérébu jàkkaarloog yàlla loolu rek tax àjjana neex ci ñoom moo tax ñu naa ab taalibe daa war a xam teggi nii te bañ caa xeeb benn dañuy wax ne ilzamil adaba zahiran wa batinan ma asaa ahadun al adaba fi zahiri illa huqiba zahiran wa ma asaa al adaba batinan illa huqiba batinan teggin moom saa yoo ko xëttee rek faaw ñu yara la mënta ñàkk bu fekkee danga koo xëtt ci bitti da nga gis yarub bitti boo ko xëttee ci biir it da nga gis ñu yar la ca biir boo ko yëgee boo ko yëgut mu daldi tàmbali wax la teggiini biir yi mithlu taxarrudi qadaa'ihi mel ne gaaral àtteem ba moom yàlla walaw bi layta ak doonte ci layta ak a neexoon la aw laxal la wala laxal la xëy na lee aw law laa wala law laa mooy budul koo nag walaw ak law mooy doonte nangam maanaam mel na nga ne bu nangamoon rek te génnu biir bi mu njëkk wax moom daanaka moo gën a jafe ndax mooy nga wóolu ne yàlla rekk moo fi nekk te it mooy def loo seen rekk jëfuma ba noppitam nag lu mu def rekk mu neex la sa xol sedd ca nga xam ne yàlla du def ba noppi nga naa ak a neexoon muy layta mbaa xay na mbaa bu lu koon ak nàngam kon nàngam mbaa bu nàngamoon kon nàngam dafa mel ne layta moom moo ci gën a diis ndax yàlla def ba noppi nga naa ak a neexoon mu def lu bokkut ak la mu def mel ne kon yaa gën a xam yàlla loolee ngay mébét bu ko defoon lay gën li mu def kooku moom moo ci gën a diis law ak law laa moom mi ngi takku rek ci sa pas-pas ba nga leen di tudd boo nee bu nangamoon day kon nangam waaye teewul nga jàpp ni lépp moom ci coobare yàlla rek lay amee du wàññi dara ndax law yonante bi jëfandikoo na ko ci